sallallahu alayhi wa sallam Serigne Mbaye Sy Mansour suñu xalif général Seydi Hadj Malick yàlla na fi yàgg téwér Serigne Mbaye Sy Mansour suñu Seydi Hadj Malick yàlla na fi yàgg téwér li tax ma ibbi dama bëgg ñu xam institution bi Serigne Mbaye Sy Mansour dirigé au-delà national Serigne Mbaye Sy Mansour est international ndax tarixa Tijaniya international moo fi nekkal Seydina Mohamed ndax mooy Seydina Mohamed bu ñu duggee fii ci Sénégal moo fi nekkal Seydi Hadj Malick wax Seydi Hadj Malick ni société civile moo créé société humaine ak société civile ndax rôle médiation ak régulation sociale CDH Malick bu mu ko commencé depuis tubaab bi bu ñuy wax marabu citoyen bu ñuy wax marabu buy def activement citoyenneté CDH Malick moo ko démarré sur la guerre la participation de la libération de France ñëwaat ci vaccin bi jamonoy peste CDH Malick ci noonu ba bi tubaab bi décentralisé créé Médina créé école def lépp waaye loolu dafa mel ni ñun tiijaan yi xamuñu wala ñaan gi Seydi Hadj Malick ñaanoon ba mu nangu ni sama njaboot ak sama taalibe bu ñu leen xàmmee dañ ci mujj naa bu ñun taalibe yi di gam-gam le suñu sëriñ yi bëgg a ñoom bëgg a ñoom jot na mu dàkk ndax Seydi Hadj Malick ku ko fi teewal yaay xalifa ñépp wax ji nag buñ ñu yabee ca nañu doxee la ndax balaa ñuy wax ci biir ci biir kër gi am nañu nanguwul autorité Seydi Hadj Malick te mooy Serigne Baye Sy Mansour loolu lañu war a njëkk parce que bi Serigne Mbaye Sy Mansour jëlee ses décisions am na ñu bokk ci ñun di ko critiquer loolu la ñu war na dakk mooy désormais lu Serigne Mbaye Sy Mansour décidé dañuy gëmm def parce que du juum ndax moo fi teewal Seydi Hadji Malick te tariqa Cheikh Ahmad Tidiane mooy charia mooy l'islam loolu laa bëgg ñu d'accord ci ñun ñëpp bi ci topp Cheikh Tidiane Sy Al dafa waxoon ni communication toll na foo xam ni képp kuy yëngu ci l'islam na nga ut sa télé ak sa appareil waaye ñun am nañ asfiya yi mu xeex ba dugg canal waaye yan sénégalais ñoo abonné asfiya yi yan sénégalais ñoo abonné malikia yan sénégalais ñooy sponsorisé foofu yan commercial ak yan am d'affaires tijaan ñooy dem foofu ñun ñooy dooleel télévision yooyu suñu ustaas yeeg yeneen ñu dem di waxtaan ñun ñooy dooleel plateau yooyu alimentaire yi nga xam ne toog di leen invité loolu la ñu war a njëkk a dakkal muy fulla ak personnalité dooleel suñuy télévision dooleel suñuy appareil jël suñuy finance dugal ko ci suñuy télévision yooyu parce que bu ñu amee médium am communication mën liggéey li ñuy liggéey loolu lañu war a xeex bi may daanelee mooy nitu àdduna yi mooy ñun suñu militantisme dafa dépassé léegi suñu taalibe ndax bërki démb am na ku ñu laa ñu ñu laa seeni président wu parti ñu joxe seen bakkan te bépp président parti wala président de la République ca Senghor Lamine Gueye ba Blaise Tiwaawoon ngay ñëw ñu régler sa problème génn Idrissa Seck Tiwaawoon la jaare Khalifa Sall génnam Tiwaawoon la jaare waaye Ousmane Sonko problème bi mujj nii Tiwaawoon la jaare ci Mansour Sy Dabakh pourquoi ñun bu ñu woowee chef de parti police wala dara ñu joxe suñu bakkan te bu ñu tuddee xalif yi ñu ne pat dafa dakk laa wax de internationale yi ñoo ne pour ñu jaar fii jël pétrole beeg gaz bi ci tarixa yi la ñuy jaar te dugg nañ ci réseaux sociaux yi indi nañu seen i moyens instruire nañ ONG yi nag Iran tuuti na ci c'est un combat très fort il faut que nous soyons très forts merci beaucoup